salaamaaleykum wa rahmatullah saadat safir hazrat cheikh Mouhamadul Bachir an natiq rasmi bismil xilaafa almuridiya bismi fadilat cheikh al xalifa yurahib bikum min jadid fi madinat tuuba al mahrusa fi hazi ziyara taarixiya allati taqumuna biha fi haza al yowm wa hiya ziyara al ula min nawiha lakum baada taayinikum ka safir li jumhuriyati misr al arabiya fi Sénégal هذه الدولة الكبيرة الدولة العلمية الدولة العظيمة التي تربطها بطوبى علاقات قديمة منذ أكثر من أربعين سنة وقد سبق لمشايخ الأزهر لشيخ الأزهر أن زار طوبى وصلى بمسجدها كما أشار إليه الآن السيد عافية بوسو في المسجد والشيخ محمد البشير باسم الخليفة وباسم كافة الأخوة al mutaawinina maahu fi iraad di màggal Tuuba wa hadi akbaru tazahura diiniya islaamiya laa qul fi alam qul fi afriqia wa fi sénégal ala wajhi xusuus huwa al aan bada fi hadi istidaadat wa huwa rais lajna tanzimia li hadi al ihtifalat fa bismi cheikh al xalifa yurahib bikum fi Tuuba wa yurahib bikum wa yurahib bil azhar al sharif allazi yurafiqukum fi hada al amal wa yashkuru al azhar ala kulli juhud alati yaqumuna biha mundu aksar min xamsi wa taatin sana fi daami taalim al islami fi sénégal wa ala wajhi al xusuus fi maahid al azhar fi sénégal wa fi maahid si ahmad mbakke huna fi tuuba izan sawfa natruku lahu al kalima baada kalimatikum insha allahu taala li kay takallama bismi al xalifa li yashkurukum ala hazi ziyara cheikh mahamadul bachir son excellence l'ambassadeur bu Égypte moo fi ñëw tey ginnaaw biñ ñu ko nommé fii ci senegal lii di visitam bu njëkk bu mu ñëw fii ci Touba bi mu ñëwee ci ndigalu sëriñ bi yóbbu nañ ko ci université ba mu visité ko yéemu na ca lool parce que da ko gën a yéem ba ñuy dugg mu ngis xale yi ay téeméeri téeméeri gone ci jàngu moom ci waxam bañ tekk bañ nekk ci réunion bi ak Cheikh Ahmed Badawi moom mooy dafa sàkk buy génn mu dem saafante xale yi bi muy génn dem na ba saafante xale yi dugg seen biir déglu alxuraan ja euh, photo ak ñoom jël ay souvenir loolu nag lafta intibaax yi la boo xam ni excellence son euh, ambassadeur def na ko foofu ci université bi bi mu ñëw it bi ñu fa jógee ñëw nañu daare kaamil visite daare kaamil waxante naa kilifa ga fa ne monsieur Moussa Diatra ngir lépp luy seen yitte ak seen aajo ci wàllu daamu maktaba bi moom ambassadeur pare na pour jàpp jàppalante ci loolu bi fa jógee dem nañ ci jumaa ji euh, visiter ko visiter bërë ziyaare bërëb sëñ mag bi ñaan fa dajeeg sëñ Afi bu bi nga xam ne ne si jumaa ja ak ñu koy jàppale waxtaan ak ñoom moom it leeral na ni lépp luy renforcement ci takwinul aima ak dimbali leen ci ay téere ak formation imam yi pare na pour jàppalante ci ñoom bi fa jógee nag ñëw fii ci yéen incha allahu taala dajeeg yéen muy ànd ak taaxam bu mag nag taaxam bi bokk na ci consul bu Égypte fii ci Ndakaaru ak ki nga xam ne moo jiite Bias Azhariya Bias Azhariya bu ñu ko waxee mooy mboole seen jàngalekatu Azhar yi nga xam ni mën na fanweeri at ak juróom ñi ngi jàppalante ak Touba jaaree ko ci institut Azhar ak école école Serigne Cheikh Mbacké yi di fi jàngale ci compte Azhar nga xam ne Azhar mooy fay moo leen yor seen lépp ñooñu léegi ñu def fi fanweeri at ak nangam bi tegal. ñeenti at yu ñu soppi leen ñeneen ñëw remplacer leen ànd naa ngi waa ministère awqaaf bu bu bu bu Égypte ñi nga xam ñenn ñi ña ngay jàngale ca université de Dakar ñenn ñi di jàngale ci yeneen bërëbu xam-xam ambassadeur bi wax na ma léegi nii ainsi université bii nekk Touba bu Cheikh Mouhamadou Mountakha par nañ pour ay doctorat yoo xam ne ñëw di fi jàngale pour gën a renforcer équipe pédagogique bi nekk ci université bi euh, bi ñu demee ci. université bi it Cheikh ba Badawi jébbal na ko lettre boo xam ni jiitu woon na université bi euh, adressé woon ko Cheikhul Azhar yeesal nañ ko ci moom jox ko ko nee na dina ko renforcer gën cee taxaw gën cee suivre ba lu ci doon yitte rek ñu taxaw ci nu mu gën a gaawee kon daal loolu moo doon seen jéego dañuy bàyyi ambassadeur mu sànni ay kàddu suñu paree euh, jox leen wala ku ngeen jox ndigal rek wax seen tur incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu isan saadat shafir alkalima lakum faltatafadal mashkuran المتحدث الرسمي شكرا على الاستقبال مرة أخرى سعدنا اليوم بزيارة مدينة طوبة وقد جئت إليها مع القنصل ورئيس البعثة الأزهرية وممثل وزارة الأوقاف بالإضافة إلى بعض أعضاء البعثة الأزهرية علاقة مصر قوية جدا بالسنغال البلدين بلدين شقيقين الشعبين شعبين يعني ممكن نقول هو شعب واحد وليس شعبين هم يوجد مشاعر طيبة سواء في مصر أو في السنغال إزاء الشعب الشقيق في البلد الأخرى وهذا ما لمسته أنا شخصيا من ساعة ما وصلت إلى السنغال زرت اليوم الجامعة والمكتبة والمسجد طبعا الجامعة يوجد مجالات للتعاون كبيرة يمكن أن نبحث تعزيزها يوجد بالفعل هنا في السنغال بعثة أزهرية حوالي عددها سبعين مبعوث من ضمنهم أساتذة ودكاترة يمكن بالتعاون معكم فورا تنظيم زيارات لهم علمية للجامعة للتدريس في بمناهجها إذا ما كنتم تريدون سنبحث التعاون أيضا في مجال الزراعة وتكنولوجيا الغذاء وفي مرحلة أخرى أيضا الطب وهذه المجالات كلها للازهر الشريف كليات في هذه التخصصات وسيكون من السهل له ان يرسل اساتذه اذا ما كنتم ترغبون في ذلك وهذا طبعا سيحظى بدعم السفاره المصريه في دكار نحن سنكون نؤيد ونعزز طلبكم طوبى مدينه جميله شعرت فيها بالسكينة منذ أن حضرت إليها وأتمنى لها أن تشهد ازدهارا وأن تكون منارة للعلم في السنغال وليس في السنغال فقط بل في غرب إفريقيا وإفريقيا كلها شكرا على استقبالكم ونتطلع إلى إن شاء الله إلى لقاء الخليفة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 laqin lisaani waxlulan min al uqat waj'alhu dhaakiran wa shaakiran abad saadat safir bismi Cheikh Mouhamadinil Bachir al mutahaddith al rasmi bismil xalifa al aam li tariqati al muridiyya cheikhi Mouhamadinil Muntaqa niyaabatan anhu wa aswaratan minni nu raxib bikum fi madinatikum al ula wa thaniya Tuuba wa nasaadu kathiran bi ziyaaratikum haadihi wa nashkurukum jazila shukr ala haadihi ziyaara allati min sha'niha an yuwaqida ala alaaqa alwatida bayna alchaabayn alchaqiqayn misr wa sénégal amatan wa misr wa atariqa almouridia xaasatan alcheikh mohamadin albachir yurahib bikum tarxiban fi madinatikum tuuba almahrusa wa saidun lilgaaya bi wujudikum maa huna wa alcalaaqa bayna الطريقة المريدية ومصر علاقة قديمة متينة جدا وهناك أشياء كثيرة تدل على متانة هذه العلاقة منها العلاقة بين مؤسسة الأزهر أو مؤسسة الأشهر مؤسسة الأزهر التي أسسها الشيخ محمد المرتضى وجامعة الأزهر في مصر وإن شاء الله هذه زيارة تفتح آفاقا جديدا ويوطد ويوزع التعاون بين الطريقة المريدية ودولة مصر ودولة مصر أو جمهورية مصر kama taarifuun laha makaana rafiica fi alaalam alarabi wal islaami wa wa yuqaddim kathiran li al muslimina fi kulli biqaaci alaalam saadat safir الشيخ محمد البشير يرحب بكم من جديد ويشكركم جزيل الشكر ويشكر أيضا الوفد رفيع المستوى الذي جاء معكم ويصاحبكم لزيارة hadihi al madina al mahrusa Touba wa incha allah laa taddaxir altariqa almuridiya juhudan li fatxi afaqin jadida li rafci mustawa hadihi alalaqa al watida al qadima wa bixtisaarin shadid hadi hiya alkalimat allati kuntu awaddu an uabbira an uabbira eh, lakum bismi annatiq arrasmi eh, alcheikh Mouhamadin Bachir wa shukran jazilan ala hadihi ziyaara ونتمنى لكم أن تعودوا سالمين غانمين بارك الله فيكم